wa sallallahu taala wa sallama ala sayidina muhammadin wa alihi ajmain mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen ndokkeel di leen dalal ci fii ci kër sëriñ abdul qadir mbakke radiallahu anhu ci bis yi nga xam ne ñi ngi ko ci fàttaliku di ko ci ñaanal mu bokk nag ci yëngu yiñ ciy def jataayu xam-xam bi nga xam ne eh, sëriñ bi sëriñ Sidi Mbàkke moom sëriñ Abdou Khadir mi sëriñ Cheikh teg liggéey bi ci loxoom moo jagleel sët jataay bii ñu di ko taxawal di ci woote waxtaanu diine ngir fàttali nit ñi lenn ci li sëriñ Abdou Khadir Mbàkke doon dund ngir ñu man ca yokku naka jëkk nag jataay bi Cheikh Mouhamadul Fadil mi al imam moo ko daan ubbi ci turu njaboot gépp mu ngi ni toog incha allahu taala sëriñ Sidi mi ngi toog mbokk yaa ngi fi ñu fas yéenee tàmbuli jébbal sëriñ Fàllu mu ubbil ñu jataay bi bismillahi arrahmani arrahim alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina muhammadin wa alihi ajmain di sant sunu doom nga xam ne ñoo taxawal jataay bi te woo leen fi ñiy gërëm ñëpp di leen sant ci turi sëñ Seex bëgg nag ñu déglu bu baax ki nga xam ne mooy def waxtaan wi teeñ jëm ci discours murit ñu tëdd ko discours murit ki ko def ci su mbokkum deret di mbokkum taalibe di alaaji Fàllu Buso mu sëriñ Xasan ñi ngi koy ñaanal tawféex di ñaanal mboolem ku teew ci jataay bi rek tawféex ñi ñaan lépp loo xam ne nii andi nañ ko fi ci aajo yàlla mii faj aajo yi fajal ñu ko te yàgg fee teew te at muñ dikk rek dàqal ñu ma weesu ñaam ci ngërëmul sëñ bi wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. njabootuk sëriñ Abdul Xaadir gépp sëriñ Cheikh nekk ci bopp bi dalal mbokk yi fi teew ñaanal sët yi nga xam ne ñoom ñoo amal jataay bi euh, ñaanit ñu bàyyi xel Cheikh Mouhamadul Fadal Bousso Alxasan mi war a def waxtaan wi di kenn ci njaboot gi ràññiku lool ci waar wi mu yëngu it yëngu ci xam-xam jàngale ak yare nekk imaam fee ca daara ju mag jee nga xam ne moom la ñuy tuddee excellence bokk ci muassasatu al azhar al islamiyya di fi liggéey liggéey bu am solo di directeuru école ba di ilimaani jumaa ja rafet lool ay taxawaay bokk na ci li koy fësal ren jii rek examen bac yi école am ñu néew ñi am 100 pour cent ci ay résultats ci la bokk te loolu njàmbaar ak taxawaay bu rafet ak jiite gum tege ci yoon bokk na ci li ko ko may ñu xam ko lool ci barab bi rawatina fii ci ko Sëriñ Abdou Khadir ndax ku xam Sëriñ Abdou Khadir xam li doxoon diggam ak Sëriñ Xasan bu Bousso way juram euh, loola moo tax kilifa yi tànn ko ngir mu ànd ak ñun mbokk yi ren ngir tomb bu am solo boo xam ne ci lañ bëgg a waxtaan muy li ñuy tuddee alxitaabul muridi euh, masuliyatun wa taxaddiyaat xam nañ ne jamono yi nu toll yoonu murit ay kàddu yu baree bari mi ngi ciy jib ñuy wax lu ne mu mel ne laaj na kon jàngat wax jooju euh, sëriñ Fallou ci ay tomb la ko tënk bokk na ca lu muy laltaaye jataay bi ñaareel ba it danañu leeral lan mooy alxitaab almuridi yi ak ban solo la am ak it ki koy def ban responsabilité moo gàll ci aw loo sam danañu défi wala gàllankoor yi nekk ci kanam discours boobu lan moo koy gàllankoor bu noppee danañu proposer incha allah ay yum jàpp ne buñ ko defaree xëy na bu fekkee am na lu ci jagut dana mën a jàkk incha allah bu noppee tëjal jataay bi ñaan mbokk yëpp ñu teewlu ko ku ñu xam la ci wax lu leer lu amal njëriñ nit ñi xëy na nag saraaxa bi am bi am it ñu déggal ko ko xam ne li muy wax noonu la ko na ni mu ko yëgee noonu la koy waxee te loolu du am solo la wax ju leer te mel na ni sëriñ bi juñu na ko nee na ku ñu xam la ci saraxatuhu as-sadiqa kon sëriñ Fàllu ñu ngi lay jégal jébbal kàddu gi di ñaan sunu dafa la tawfiq ak taysiir eh, ba li nga bëgg a jot li nga mën ko jot li ba mbokk yëpp mën cee jariñu bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala bokki jullit yi fi teew bokki taalibe yi ñu ngi yëkkat sunu kàddu muy kàddu yu nuyoo ak cant ci nuyoo lislaam boobu di ñaan sunu borom lim ci dëxëñ te mooy jàmm ak yërmandi ak barke yàlla ful ko te tasaare ko ci àddina bi yëpp rawatina réew yi jullit yi waaye rawatina sunu réew di senegal nuyoo bi ak cant bi ak ziyaar gi ak ziyaar yi ñu teg ko ci loxol sëriñ Sidi mi nga xam ne nii mooy coordonné màggal gi moo nekk ci bopp màggal gi mu jottali ñu ko mbooleem njabootu Cheikh Abdoul Khadir gi nga xam la ñu fàttaliku te ci kilifteefu sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké mu jàll law ba ci alxalifatul am lil muridin Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan sunu borom kàttanal leen yàggal leen fii te mot li seen yéene di sàkku ci ñoom it ñu ñaanal ñu ñun tam sunu borom na ñu mot li ñu suñu yéene. ci barke bis bi nga xam ne nii ci lañ nekk di sant bu baax Cheikh Mouhamadul Fadel mi nga xam ne nii moo ubbi jataay bi ci kàddu yu am solo yi ak ñaan yi nga xam ñaan na ko fi ñaan suñu borom defal na ci tawféex dëppale ñoo ñaan yooyu yëpp di nuyu baax nag daayira bi nga xam ne nii ñoo taxawal jataay bi te mooy daayre yi sëti Cheikh Abdoul Qadir yëpp di nuyu itam ñi nga xam ñoom lañ bokkal jataay bi muy sëriñ Mbàkke Abdourahman al imam ci laytaay bi waaye suñu mbokk moom Cheikh Mamadou Fadil Bousso Thierno moom it ñu sëq ak moom jataay bi ak yeneen gëstukat yi nga xam ne ni ñu ngi ci jataay bi te defe naa ne luñ fi def bu amee lu manqué ñoom danañ ko mën a mottali di nuyu bokk yépp di leen ndokkeel tam ci at mu bees mi ñu dugg di atum jullit yi waaye tam xew-xew bu bees bi ñuy bi ci am solo bi njëkk ci at mi te mooy fàttali gu ñuy fàttaliku al imaam Cheikh Abdoul Qadir ñoo ngi ndokkeel ñëpp ci xew. waaye di ñaan ci barkeb Sëñ Abdul Xaadir at mii ñu dugg di atum jullit yu bees yi sunu borom def ko mooy at moo xam ne nii buñ ci génnee mbooleem xat-xat yi njàqare yi nga xam ne nii jullit yi doon nañ ko dund sunu borom danañu ko teggil ndax defe naa ne bu ñu xoolee ci jamono ji ñu toll nii lislaam ak jullit yi dund lislaam ñi ngi jànkonteeg ay xat-xat yu méttee métti fu ñu dem ñu leen di bunduxataal di leen maltraité di leen teg ay coono yoo xam ne nii seen njullit rek a tax ñu teg leen ko waaye nag dafa mel ne yëf yi dafa jéggi dayoo léegi dañoo àgg ci fekk ñu ci suñ buntu kër bopp suñ biir kër yi bopp di ñu fa xatal di dox suñu diggante ak ñu mën a joxe suñu jaamu yàlla yi nga xam ne nii moom la yàlla farataal ci ñun te ay jàmbur jógee ci feneen bàyyi seen dëkk ñëw fekk ñu suñ dëkk di ay jullit war a joxe suñuy farata ñu fas yéene dox suñu diggante ak yu mel noonu loolu nag defe naa ne jotaayu jullit bu ñu toog war nañ koo fàttaliku waxtaane ko ba jullit bu nekk man caa xam lay cay responsabilité am tam nangu ko assumer ba mat sëkk nangu ko gàddu ba mat sëkk teñ sori xeetu yëngal sidit yi ñuy def nervosité bi nga xam moo ci am yëngal say sidit wala yëngal yëg-yëgi nit ñi wala réaction yoo xam ne ni doo ko jàngat ba teg ko fi nga war a yooyu yëpp du faj mbir mi waaye jullit bu nekk na xool li tax lii am ba jullit yi àgg fii ñu àgg moom ban responsable da ci am te nangu koo gàddu ba mat sëkk loolu mooy fajtal mbir mi waaye leneen mënu koo fajtal diskuur nag bu ñu ko waxee te mooy lépp wax joo xam day génne ci nit jëm ci ñeneen loolu diskuur lay tudd mu am ñaari wàll benn bi mooy li na ci biir wax ji mooy message bi nga xam ne nii kiy joxe discours bi moom la bëgg a joxe ak wax ji nga làkk walla waxin wi nga xam ne nii ci lay jaar pour jàllale bataaxel boobu bu ñu xoolee ñaari wet yooyu nag danañ gis ne am na ab cër bu mag a mag ci li xew ci biir jamono ji ci biir jullit yi discours bi jullit di amee ak nañ koy jàllalee am na ci am na ci lu wér a wér ay jafe-jafe boo xoolee tey ci biir contenu bi maanaam li ne ci biir discours bi message bi ñu bëgg a jàllalee gis ne wuute gi daf cee bari lool xëccoo bi bari ci loolu ku nekk di weddi sa morom ku nekk jàpp ne sama la nga nekk rek mooy dëgg sa morom lam ne du dëgg di ay gisin yu baree bari yoo xam ne nii mi ngi ci biir te li ci ëpp ñu baree bari buñ gisee gisin yooyu ba noppi dañ naan lii mooy lislaam wala lii mooy alxuraanul karim te fekk na seen gisinu bopp lay doon ñu nett li ci benn xissa boo xam dañ koo dund mas nañ barab bu nekkoon di fa liggéey ay tubaab ñëwoon fa gane si école ba ñu doon liggéeyee biñ toogee ak ñoom di waxtaan ci biir waxtaan wi ñu doon waxtaanee mbirum xarafal jigéen léegi xam ngeen bu dee dëkk ya ca féete gànnaar ñoom dafa bokk seen aada seeni soxna dañu leen di dugal néeg defal leen li ñuy defal góor ñi biñ ciy waxtaan nag am ñoo xam kuréel boo xam dañoo jóg ne loolu daal lislaam moo ko santaane kon dañ ko war a def am beneen kuréel bu jóg wane ne loolu lislaam jàngalewu ko te it na koo mën a bàyyi tubaab bi mu jëlee kàddu li mu njëkk wax mooy ne yéen de yéen ne ngeen ay jullit ngeen te ñëpp ci alxuraan ngeen refeeru ba noppi li ngeen di wax bokkul kon xanaa kon li ngeen di wax nangam ak nangam daal ciy commencé sikki sàkk loolu mooy indi discours bi fekkante ne xalaat yi nekk ci biir fexe ba mu dëppoo wala boog wuute na ba noppi ku nekk sax ca la nga nekk wane ne mooy dëgg day mel ne kon fa ñuy refeere moo am problème loolu dafa fës ci biir discours bi jamono ji ñu toll nii waaye itam fës ci waxin woo xam ne nii léeg-léegi day jéggi dayoo gis mbokkum julit ak mbokkum julitam ñuy wax daanaka ba àgg jokkalante ay kàddu yoo xam ne nii kàddu yu ñaaw lay doon loolu nag li muy indi mooy dañuy dem ba cër bi ñu ñeneen ñi joxoon respect bi ñu ñeneen joxoon dañuy dem ba ñàkk ko te loolu ci lañ toll bu ñu nekkee suñu biir mel noonu itam day ubbil bunt ñeneen ñi ngir ñu mën caa jaar potoxlu ba wax li ñu bëgg a wax comme li ma joxoon ci misaal bi ma joxoon ci tubaab bi noonu moom bëggoon nañoo sikki sàkkalu ci lislaam ak alxuraan bunt boobu ci la jaar pour wane na yéen yéen ngi wax lii te ñëpp yéen bokk fa ngeen rafeerew te da ngeen a wuute ci mbir mi kon loolu dafay indi bunt boobu lay ubbi ñeneen ñi jaar ci ba mën a def la ñuy def te léeg-léegi nag buñ ci jaaree suñu mbokk jullit na ñun moo leen di jàppale bañ def lañ bëgg a def loolu kon ñu gis ne discours bi nga xam ne ni moom la jullit di yor jamono yi li ne ci biir war nañ koo xoolaat waaye itam niñ koy joxalee ak niñ koy joxalantee war nañ koo xoolaat bu baax te bu yàgg dañoo jàngoon ne wax bu doon xaalis noppi moom wurus lay doon léeg-léeg day situation day toll foo xam ne nii noppi la gën a laaj ci wax waaye itam ñu jàngaatoon ci biir ne li ngay wax di ko rëccu moo ëpp fuuf la nga xam ne waxoo ko te di ko rëcc maanaam li ngay wax ba noppi rëcc la nga doon wax wala am loo rëcc la nga doon wax moo gën a bari fuuf la nga xam danga nga noppi di ci am looy rëcc loolu tam ko day tegtal wax ji am na solo waaye am na danger bu ne ci biir ñu jàngaloon na tam wax moog médicament ñoo yem garab garab yi ñuy naan na doom ay doom wala yu mel noonu moog wax ñoo yem dañu wax ne médicament boo ci jëlee lu yem dose bi ñu la jox nga respecté ko mën na laa amal njariñ lool waaye bu la xër yóbbee ci nga jëfandikoo ci lépp loraange la lay jural naka noonu tam wax mënta ñàkk discours mënta ñàkk waaye nag nay yam fi mu war a waaye bu ko ëppee loraange ji muy jur moo ëpp loolu nag moo am ci discours bi nga xam ne nii moom lañuy gis léegi ñu koy jokkalante suñu biir ñun ñëpp na xam ne jamono ji ñu toll nii day jamono joo xam ne nii dafa ràññikoo ci wax ju bari liñ gën a seetlu mooy wax ju bari léegi nag dañoo àgg ci ba gëmloo ñu sax ne képp ku waxul ñu fàttale ku waxul doo jot sa cër loolu la nit ñi gëm léegi ba ku nekk boo xëyee la ngay liggéey lépp mooy fexe ba daas sa làmmiñ defar ko ba man ne loo bëgg wax mën ko wax bu ko defee nag dugg la sa yoon ne nga dugg ca lu sa yoon nga dugg ca lu ne nga wax ca lu ne nga jëf waxin ca ak waxin woo xam ne nii du tege ci nam war a tege waaye itam dem nañ bàgg ci léegi xamatuñ kan moo war a wax ak ci lan la war a wax mu gën a yokk nag bu ñu demee ba jamono jii nga xam ne communication dafa tasaaroo tasaaroo goo xam ne nii loo bëgg a wax am ku la ko mën a jàllaleen te jàllale gi gën a yomb lool mën ngaa toog fii di wax nit nekk fu nekk nit nekk ci àdduna bi di déglu li ngay wax di ci ànd ak yow man caa sax jokkalante ak ay kàddu ci biir loolu kon yomb gum yomba tasaare tax na léegi discours yi gën a siiw gën a tasaaroo moo tax ni ko imaam waxee léegi danay gisee kon xoolaat discours yi nga xam ne nii day jàll léeg-léeg mu jàll fii léeg-léeg mu ñu koy dégg feneen ak feneen ci ay xew-xew yu wuute laaj nañu taxaw jàngataat ko gëstuwaat ko te jublu ci nag yeete rek ak soññe ak yu mel noonu discours yooyu nag ma wax nag discoursu murit gi ci biir lay dog lay dugg muy discours boo xam ne ni moom itam ci yenn yi ci yenn discours yi taban yenn yi boo ko xoolee dañ ci seetlu ci biir ne xat xatal dugg na ci biir xatal wax ji dafay dugg ci biir fés ci lool léeg-léeg nga dégg koy wax ba mu yàgg mu ne sëñ tubaa rek a fi nekk wala lu dul sëñ bi ak neen la te sëñ tubaa mu jàngaliwul loolu loolu moom du jàngalem sëñ tubaa koy wax yaa ko wax waaye du jàngalem sëñ bi loolu xatal lay jur te fés na ci yenn discours yi tasaaroo ci biir murit gi léeg-léeg itam tar ciw làmmiñ maanaam waxin boo xam ne ni day metti lool léeg-léeg sax mu xaw a tegu ci maanaam lañ la mu war a làmboo ci ay teggin yooyu léeg mu manqué loolu itam day feeñ ci biir kan moo war a def discours bi ak ci lan la ko war a defit léeg mu feeñ ci biir discours murid yi kon loolu dañ ci ñëwaat ci kanam kon danañ gis ne discours murid gi ci lim làmboo ci biir ak niñ koy jàllalee defe naa ne bu ci nekk waris na cee mën a am taxaw seetlu buñ ciy def xool ba xam ndax amul luñ ci war a jooyanti wala déet donte nag ci tàmbali dañ nangu ne am na ci biir murid gi discours buy jàll te mel na mu war a mel di jóge fa mu war a jóge di jàll fa mu war a jàll di jaar fa mu war a jaar nañ ko war a waxeet ñu koy waxee noonu léegi kenn weddiwu ko waaye jafe-jafe bi léegi mooy ne murit boo gis léegi dafa am discours boppam ñun ñëpp ay orateur lañ ñun ñëpp ay conférencier lañ léegi moom loolu ñëpp xam nañ ko te loolu mooy safaanu li amoon ci murit gi bu njëkk bu njëkk benn kàddu moo amoon ci murit gi kenn ko daan wax wala boog kam ko wax loo rek moo koy wax te loola moo ñu mayoon cër bi ñu mbooloo mi àddina bi joxoon bépp wala boog suñu nattangooy cër bi ñu joxoon loola ci la ngir fesal loolu nag am na xeeti discours yu baree bari yoo xam ne nii mi ngi jàll bu ci nekk dañ koy génne ci forme question laaj ba xam ndax discours boobu war naa mën a jàll wala wata mën a jàll bu nu xoolee discours bi génn ci murit gi léegi tey gën di tasaaroo ndax dëgg-dëgg lim yor ci lim làmboo ci biir maanaam message bi mu làmboo contenu bi mu làmboo ci biir ndax dëgg-dëgg mi ngi joxe ay tont yoo xam ne nii dëppoo naag li jamono ji laaj jamono ji ñu toll nii ndax loolu mu ngi koy joxe wala joxewu ko ndax langage bi ñuy jëfandikoo làkk bi wala boog waxin bi ñuy jëfandikoo ndax dëppoo na ak situation bi nga xam moom la jamono ñu dund jamono ji loolu benn laaj la beneen laaj bi tam mooy ndax discours boo xam ne nii la ëpp ca discours ba ci ay ay maanaam xar baax ci lay wax ay jagle rek ci lay wax yoo xam ne nii sëñ bi am na ko ndax loolu dëppoo naag maanaam jubluwaay bu bees bi nga xam ne nii moom lañ seetlu rek ci nit ñi te mooy jubluwaay boo xam ne day tegu ci logique tegu ci raisonnement boo xam ne nii xel moo koy lal ndax loolu dëppoo na te loolu moo tasaaroo léegi ci diggante ñëpp moo xam ñi ñu tuddee maanaam amatu nas maanaam mbooloom mépp wala sax ñi nga xam dañoo àgg ci benn niveau bi léegi foo dem lépp loo teg ci kaw taabal ji nit ñi dañoo tàmbali léegi di jëfandikoo seen xel di la ci poser ay question di la laaj kooku nga xam ne xel lay jëfandikoo nag ku nekk xam ne ne dafa am domaine bu mu valable te mooy li nga xam ne ni man nga koo layal ci xel waaye ay xar baax ak i jagle day ay mbir yoo xam ne nii ka ko moom rek moo ko mën a xam moom doo ngit moo ko mën a leeral loolu pour jox la ci misaal am na ci loo xam dañ ko dund am réew mañ ne woon di fa jàng dañ fa amoon daayira boo xam ne nii dañ daan def bu màggal jotee ñu ko organiser conférence di dundal màggal gi foofu kon ñu bàyyi xel ci ne foofu ay murit ñoo fa nekkoon daje mi may bëgg a wax ni ay murid don nga fa teewoon waaye ki doon def conférence bi mu defee conférence ba noppi ba àgg ci jullit sëñ bi ci géej gi jullit sëñ bi ci géej gi benn murid bi ci sikk sàkk amul kenn ñemewu ca sikk sàkk waaye nag pour wan la rek léegi nit ñi logique bi ñuy doxee léegi waa ji bi mu defee conférence ba noppi dafa am ku yëkkati loxoom laaj ko ne ko dama lay laaj mu ne ko bisimilah mu ne ko laaj bi may lay laaj mooy sëñ bi bi mu jullee ci géej gi maanaam nan la def ba dellu ci bato bi ndax bato bi daa taxoon di xaar sëñ bi ba sëñ bi julli ba noppi wala sëñ bi daa àndoon ak bato bi daw maanaam daal nu mu delloo ci bato bi la doon laaj léegi foofu bi mu ko laajee ma gis ne waa ji doon def conférence bi wax dëgg jéem naa jéem waaye mënta joxe benn tontu boo xam ne nii mën naa iqnaa koo xam ne nii xelam mën naa mën naa convaincre koo xam ne nii xelam rek lay jëfandikoo kon discours boobu am na fu mu walaa bale waaye am na foo xam boo fa ko fa defee da ngay indi ay jiixi jaaxa ci nit ñi kon discours bi léegi war na noo xool nu muy gën a dëppoog raisonnement bi nga xam ne nii moo am ci jamono ji am na discours buy jàll tam ci biir murit gi la ñuy làmboo la ëpp mooy wane ne sëñ bi dafa ñëw ngir màbbu daara yi dañ lay wax ne la sëñ bi ba mu ñëwee daa tas daara yi ndax gis na ne jàng ak jàngale mënut li mu bëgg ci façon bu mel noonu boobu discours yi ndax mën naa jàll jamono ji ñu toll nii jamono joo xam ne ñëpp léegi dañoo jublu ci xam-xam gën koo dundalaat xale yëpp di jàng jublu ci ndax boo leen bëggee présenté sëñ bi comme koo xam dafa ñëw ngir kontrom njàng ndax discours boobu mën naa jàll boobu mi ngi am na bu mel noonu mi ngi am ci biir murit gi ndax discours boo xam ne nii jamono ju nekk mu ngi sukkandiku ci ñaaw njort ci keneen ki keneen ki nag mooy ki ñu bëkkalul yoon wi maanaam lu nit wax rek nga ne sëñ bi lay wax lu nit wax rek nga ne ñun lay wax daal di fës ko yéene tontu te na muy ndax boobu discours itam valable na te moo ne sëñ bi teel nañoo jàngal ci nax ju muy téere boo xam ñëpp dañ koy njëkk a jàng wax joo xam ne ni xëy na du ay waxam waaye rotal na ko rotal gi mu ko rotal day tel ne dëppoo naag kooku la mu wax ndax dafa jàngal ne man léegi damay romb nit mu di ma ŋàññi waaye damay fegu wax ne kii de xam naa waxut ak man sax gannaaw ba nag kooku noonu la jàngale rek kon kii wax di wàcc ci mbedd mi wax di poste ci maanaam net bi ak yu mel noonu audio yeeg maanaam yu mel noonu ñu koy tasaare ñu fas yéene ko tasaare audio nga fas yéene sëñ bi lay wax wala ñun lay wax loolu itam yàqu day discours boo xam ne nii mënta walaabal jamono ju nekk kon yooyu xeeti discours la yoo xam ne nii war na noo laaj ndax mën naa nekk discours boo xam ne nii jamono ju nekk ak saa su nekk war nañ koy mën a jëfandikoo ndax niñ koy waxe waxin woo xam ne ni yow boo ñëwee doo waajal dara da ngay ñëw rek ñu jox la micro nga tàmbali daanaka du am thème bu bu ñu xam du tënku ci tam lu ñu xam maanaam lu ñëw njëkk ñëw sa xel rek noonu ngay démarrer wax lu mel noonu wala langage boo xam ne nii foo ko fekk day mel ne kuñ ne koy défendre koo xam daal dañ ko attaqué mooy défendre ndax tam waxit woowu dëppoo naag jamono ju nekk kon yooyu ay façon discours la yoo xam mi ngi suñu biir ñu indi ko nag ci forme laaj ndax ba xam loolu discours yooyu ndax dëgg-dëgg mën naa indi ay tont yoo xam ne ni dana convaincre ki nga xam mooy déglu kon war noo gëstu tont yoo xam ne nii képp ku ñëw di déglu discours murid yi boo ko dégloo ba noppi la ngay dégg dana sa xel dana ko mën a jàpp tey danga ko mën a jariñoo tey dana la mën a convaincre kon ngir tont yu mel noonu nag la muy njëkk a laaj mooy ku nekk nga jàkkaarloo waat ak sa bopp nangu ne li ñuy wax dafa am ñu bare bari boo waxee lu mel dañu naan la waa ji day rek waaye loolu waaye te loolu ñëpp gis la xam ko di ko dégg di ko gis di ko ja ko dund kon waa weddi ko moom wax dëgg yàlla dafay mel ne mooy daw sa responsabilité kon nangu ne mi ngi fi nu xool nag ku nekk xoolaat sa bopp def sa autocritique jàngataat sa bopp ba xam nan lañ mën a def ba dugal lu mel noonu nan lañ mën a def tam ba tontu nit ñi tontu loo xam ne dañ leen dañ ko nangu waaye itam day dëppoog seen xel weddi nag ne waxtaane jagley sëñ bi am na solo loolu kenn mënu ko weddi waaye jamono ji ñu ñun liñ gëm mooy ne àdduna bi liñ gën a soxla mooy sëñ bu mag bi ñu wane ko ci dimension humaine maanaam ci ak niteem ak lim nite ba noppi def loo xam ne nii nit ñëpp nañ cee jariñu ñu wane ko ci nite googu mooy tax àdduna bi mën koo jël ngir régler ko seen jafe yi nga xam ne nii moom la ñuy dund kon liñ soxla léegi mooy ñu wane sëñ bi ci dimension niteem ak niteem pour wan nit ñi ne leen doomu aadama la waaye joxe na ay solution yoo xam ne nii bu ñu ko jëfee àdduna bépp mën nañ cee jariñu te mën naa régler lu bare bari ci àdduna kon loolu defe naa ne moom lañ gën a soxla tegul nag te taxut nag ne dañoo wax ne kenn warta waxtaane jagle sëñ bi wala ay xar baaxam te defe naa ne ñi doon tànn tomb bi thème bi ñu ko doon tànn it yaakaar naa li ñu ci jublu rek mooy am na génération yoo xam ne ni ñu ngi yéeg ñu war leen a fexe bañ am yeewu yéeg-yéeg bu baax waaye itam ñu xam seeni i aada ak seen cosaan xam seeni valeur ak seeni baax waaye itam ñu xam jamono ji lim laaj dëgg-dëgg bañ mën a ànd ak seen cosaan ba noppi jamono bi du leen raw loolu ñu xam ko loolu la nag lañu koy may mooy yennat yu mel nii nga xam ne mi ngi ci biir murit gi ñu nangoo toog jàngat ko jàngat boo xam ne lépp luy xeeti par parloo ak la kuréel def ciy génn waaye ku nekk indi ko na nga gis ne moom bu ñu ko defee mooy baax nga jiblu ci nag luy jariñ mbooloo mi lépp defe naa ne loolu mooy solos waxtaan wu mel nii te jàpp naa ne ñi tànn thème bi tam lu mel noonu lañ ci jublu kon tënk bi ñuy tënk ni ko imaam waxe danañ tënk waxtaan wi ci ñeenti tomb danañ wax ci lan mooy discours ci boppam bu ñu ko waxee mooy lan ban solo la am ci tasaare ab woote waaye itam kiy def discours bi ban responsabilité la am ci discours bi bu ñu noppee dañ waxtaan waxtaan ci yi nga xam ne ni mooy dëkk discours murid yi maanaam défi défi yi nga xam ne nii moo taxaw ci kanam discours murid yi ba bañ jàpp ne la mu war a joxe dëgg dëgg dese na koo joxe su noppee dañ xool ay solution yoo xam ne nii jàpp nañ ne bu ñu ko defee lañuy jàmbat ci biir discours murid yi loola mën naa soppiku wala ak mën naa gën a kii bu noppee nag door a tëj waxtaan wi ci tënk. kon tomb bu njëkk bi mooy discours ci boppam waxoon naa léegi nag ne wax ji génne ci làmmiñ di dem ci ñeneen loolu discours lay tudd dafa am ci biir nag ay pàcc pàccaan yoo xam ne nii danañ ñëw ci kanam. kon discours ci boppam mooy wax ji la làmmiñ wi koy wax ak la muy wax ca biir maanaam mooy waxin wi ak li ne ci biir wax ji muy loo xam ne nii nit da koy génne ci moom benn mu di ko wax wala mu di ko bind di ko yónnee keneen koo xam da koy déglu wala mu di ko liir la koy wuutaleeg yeneen waxtaan nag mooy moom lam ci jiblu dëgg-dëgg mooy bàyyi jeexit ci ki koy déglu tey it mooy xëcc ki koy jublu ki koy déglu jaarale ko moom yoon wi nga xam ne ni gis na ni moo gën a baax ci moom te moom lay waxtaan moom ngir mu jaar ci loolu mooy discours moo ko wutale ak kon bu ñu wax discours murit mooy lan mooy dañ mooy message wala contenu bi nga xam ne nii moom la njàngaleem sëriñ bi làmboo te murit yi bëgg koo jàllale ci ñeneen ñi ci jublu ca tasaareem njàngaleem sëriñ bi ngir ñu jëfandikoo ko ngir mën a régler jafe yi nga xam moom la am kon loolu mooy discours murit mooy li ñuy waxtaani ci sëñ bi ci njàngaleem sëñ bi te bëgg koo jot li àddina bi ngir àddina mën koo jariñoo ci régler seeni problème loolu mooy discours murid discours nag ci déggin woowu mënta ñàkk ñetti élément benn bi mooy ki koy joxe ci boppam bi ci des mooy li muy joxe lim làmboo ci biir mooy risaala bi bi ci des mooy ki koy déglu ku nekk ci ñoom nag am noo war a mel ngir mën caa jariñoo ci déggin woowu nag discours dafa nekk loo xam ne nii ba àddina sosoo ba léegi ñu ngi koy jëfandikoo te ba léegi ñëpp ngi jëfandikoo képp koo xam ne nii am nga maanaam yonent boo war a jàllale maanaam message boo xam ne ni war nga koo jël jox ko ñeneen képp koo xam ne nii da am looy woote te bëgg ñeneen ñi topp la da nga jëfandikoo discours. moo tax yàlla wax ci yoon lisaano ci wàlla wax ci yonent yàlla daawuda ne dama koo jox ma ak faslal xitaab mooy discours boo xam ne ni bu jàllee day leer nañ te day wax dëgg gi ñëpp xamandoo ko kon jumtukaay la boo xam ne nii ñëpp koy jëfandikoo képp ku am. woote booy woote wala message boo bëgg mu jàll dangay nga jëfandikoo discours kon nag orateur bi te mooy kiy def discours bi foofu day nekk koo xam day tegtale aw yoon aw yoon lay wane aw yoon lay tegtale te nag ku nekk la ngay tegtale yaa ka koy jëfee yéen a bokk bu àtte ci misaal tey man su ma doon tegtale yoonu tegu ci jub yoonu mbaax képp ku jaar ci yoon wi lam cay amee ci yool man mii dama ko ci am waaye su ma demee safaan bi tam wax loo xam ne nii nit ñi dañ ciy jaar ba ak yàq juddoo ca maanaam kooka maanaam lu mu ci am ci ak bàkkaar yow mi ko tegtal yoon wi tam da nga ciy am bàkkaar loolu nag foofu la ñuy gisee nekkoon képp ku yor micro di orateur di wax ñu lay déglu am nga responsabilité bu mag a mag boo xam ne nii gàll na ci saw loos xam nga ko wala xamoo ko nag leneen la ndax wax nañ ne discours bu nekk day am lu mu làmboo nga bëgg koo jox keneen ki ngir bàyyi ci moom jeexit kon li ñëkk natte sa bopp mooy su fekkente ni dangaa wax ba noppi li nga wax bàyyiwul benn jeexit mooy da ngaa échec kon jàppal na yow la nga doon wax amul njariñ su fekkee ne da ngaa joxe discours ba noppi tam mu bàyyi jeexit yoo xam ne nii bokkut ak dañ doon séentu ba tey dangaa échec kon jeexit ji bokk na ci nattukaay yu njëkk yi ngir gën a mën a leeral nag responsabilité bi nga xam moo gàll ci loosu kuy joxe diskuur moom it dañ koy jox ci forme ay ay ay question buñ doon laaj tey. maanaam nit ñi lislaam bi nañ ko woyefalal léegi nga xam ne diine jaa ngi fi waaye dund diine daa gën a woyef seen biir kan moo am responsabilité ci loolu buñ doon xool tey positif bi nekkoon ci mag ñi daroon Sëriñ Tuubaa ak positif bi ne ci ndaw ñi ak nit nekk ci nit ñi jamono yi lu tax positif ba gën a dëgër bii lu tax maanaam taayife maanaam kuréel yi ñi séq diine ji ba noppi nekk ay kuréel ci biir lu tax ñuy am ak noonoo ci biir ba ñaari ñoo xam ne ñoo bokk lislaam waaye bokkuñu yoon wuñ jaar ci biir lislaam di ñàkk a mën a bañ a toog waxtaan kan moo am responsabilité ci maanaam débat boo xam ne nii du jur dara tey ñun bu ñu toogee la ñuy waxtaane mooy lan mooy sikkim bu gudd ak bu gàtt yëre bu gudd cëkkal ak bañ a cëkkal julli julli maanaam banque say loxo ak tàllal say loxo maanaam détails yoo xam ne nii yu ndaw ndaw la par rapport ak défi yu mag yi nga xam ne mooy xool mooy xaar jullit yi tey duñu ci réer gu mag gi ci jullit yi àdduna booy xool tey réew yi ëpp gën a néewum njàng réewu jullit la nga koy fekk tey booy xool àdduna bi wéréd yi nga xam faagaagal nañ ko bu yàgg ci yeneen dëkk yi ci réewu jullit nga koy fekk muy faagaagal nit ñi sibru choléra ak yu mel noonu boo doon xool tey ñàkk nit ñu amul dara ndóol ci réewu jullit yi ci la gën a amee doole te muy ñett yoo xam ne nii askan wu mu daje balaa bàyyi da leen a faagaagal muy réer ak ñàkk ak wéréd lu tax mënuñoo toog débattre discuter ci maanaam défi yu mag yooyu nga xam ne moo ñuy xaar xanaa ñu ne ko fa kupp di waxtaane yoo xam ne nii wax dëgg yàlla ay détails yu ndaw la loolu kan moo ci am responsabilité dañuy gis ne kon man mën naa yaatu waaye discours bi discours diine bi ñu yore ñun li cëpp ci la bokk ndax débat yooyu yëpp ñu koy ñi koy yëkkati di ko tasaare ci biir jullit yi mooy jullit seen bopp ñoo koy def kon loolu discours bu jaarut yoon moo ko indi suñu biir te ki koy def moom moo ci am responsabilité tey ñi yor discours bi ci yoon ci ci diine ji ba noppi muy jur lu mel nii ñoom ñoo am responsabilité ci loolu boo ñëwoon ci discours sociale bi tey maanaam nit ñi lu tax nit ñi ak naafeq tasaaro suñu biir maanaam nit kiy wane loo xam gëmu ko wala muy doxe noo xam ne nii du pas-pas du ngëm lu tax bopp sa bopp bu ëpp fés ci ñun léegi lu tax ku nekk di xool sa intérêt rek waaye doo xool intre mbooloo mi lu tax ñi ku nekk di wane sa bopp damoonte suñu biir fa nga bokk wala yaa ngi damu ci alal ji nga am wala lu ñu mel noonu man-man yi nga man loolu tam daañ gis ne mën naa am responsabilité yu baree bari waaye discours social bi ñu yore di ci moo koy indi ndax xam nga ne discours social li muy jariñ mooy li ñuy wax socialisation mooy génne nit ci bàyyi ma yóbbu ko ci nité tey nag bu ñu xoolee ñun suñu discours bi li ko lal yëpp mooy baat yoo xam ne nii miin nañ ko ay njariñ loo fekk ku falfalu say buur yu mel noonu yu tasaaroo suñu biir moo indi léegi lu mel nii kon responsabilité ñi yore discours boobu day daal di feeñ foofu loolu mën nañ ko topp ba ci ñi yore wàllu politique bi di yëngu ci politique nga gis tey kuñ ne politicien nga day mel ne dañ laa xas ñun bu ñu bëggee wax nit dañ ko aan diw de politicien dong la jëmmi politique ci boppam baat bi itam yàqu na yàquwaay boo xam ne nii léegi moo kuy tappale ak kuy def ci caaxaan ñoo bokk maana kon loolu kan moo ci am responsabilité tey kan moo tamal ndaw ñi nga taxaw di wax loo xam ne nii wóor na la di digge loo xam ne nii wóor na doo ko def kan moo ci am responsabilité lan moo tax tey ay magi jëmm di kilifa ñu waroon a roy ci ñoom ñu taxaw di jokkalante kàddu yu ñaaw ba àgg ci di xeex ak xulóo kan moo ci am di ko jàngal nag ndaw ñi ñu koy màggaale loolu tam dañuy gisee ne bu baaxul moo koy indi murit gii ñu nekk lu tax tey maanaam nit ñeme taxaw ci kanam murit yi taxaw ci télé wala rajo ñëpp di la déglu wala ñëpp di la seetaan ngay wax ay kàddu yu juunu yu ñàkk teggin di ko teg ci bopp maanaam di ko teg ci yoonu murit léeg-léeg sax nga àgg ci kilifa yoonu murit di ko teg ci kawam loolu ku ne xam ne bu njëkk amutoon kon lu tax léegi maanaam nit ñi ñeme ñeme ba lu leen neex wax ci yoon wi lu leen neex teg ci kilifa yi yoon wi loolu kan moo ci am responsabilité fi la xaqiqa discours bi ñu am ñun am na ci responsabilité ndax bu fekkee da ngaa yor discours man ku ma wax lu ñaaw ma delloo la ko da ngaa yor wane ne man ku ma weddi sama sëriñ ma weddi sab sëriñ loolu lu mel noonu lay indi ndax ku nekk xam ne ku nekk da ngaa am nu la yàlla may nu la yàlla may nga di ko doxe léegi nag ki nga jàmmaar loolu su fexee ba yóbbu la ci man maninam yow bu ngeen xeexee mu gañe la ci misaal tey am na ñoo xam yàlla bindewu leen saaga mënuñoo saaga tey boo doon waxtaan nit mu xëcc la ba duggal la ci saagaan de moom dañ la saaga saaga woo xam ne da ngay dar say nopp ndax doo doo mën kon buñ bàyyi nañ bàyyi xel ci ne bu fekkente ne nit dafa waxe waxin boo xam dafa juunu nan fexe ñun ba wax discours boo xam ne nii discours bu tegu ci yoon lay doon teggi te loolu dañ ci gën a ñëw ci kanam te loolu sëñ bi daf ñu ko jàngal moom it ba tey wax ne ŋàññante ak weddente jikko yi gën a bon ci la bokk maanaam ñaañante ak weddante maanaam ku ma weddi ma weddi la ku ma ŋàññ ma ŋàññ la nee na ci jikko yi gën a bon la bokk mook ku ma dóoru ma dóoru la xeex ñoo yem kon loolu tam nga gis ne discours boobu tam dafa am responsabilité ci maanaam ŋàññ gi nga xam ne ni nit ñi ñeme nañ ko ŋàññi yoonu murit ak li ci aju léegi